ñëw ci làmb ji euh, tooyal sa ngeem. waaw dëgg la dëgg la ñu ngi xaar combat yi parce que daaw laa mujjee bëri ñu xaar combat yi waaw waaw. kan nga bëgg fu mu toll nii. ba ñu ma bëgg bëri trop ñoom les deux ñoom ah, ñoom Yékini Junior ñoom la. bañ parce que defuñu fi lu ma ñaari defet la ñaari mbër ma daal Junior diis na de Yékini Junior. ñaari defet la am nu mu diisee kawul diisul lamb amatul diis lamb 120 kilos mun naa bëri loolu amu si diis lamb wala